أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ۖ وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 نيوان بتأي كتاب الحج والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري جسم جتابي ويس جسم ننتي باب الصلاة بمينا بنت بي أحمد مامو يحت جلي جي جلي جمينا جسم ننتي حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بمنا رحمن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صدرا من خلافته من دولي على صلى الله عليه وسلم جلنا من النار ركا عن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بچ سيدنا عثمان صح رضي الله عنهم تلين جيت تي خلافة مجي جسون ننتمي حديث سيدنا حارسة بن وهب بن الخزاعي رضي الله عنه نحن نتنمم لنا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط wa amanuhu biminan rak'atayni nenante bi sallallahu alayhi wasallam jiti nañu fekk ñu ñu nekk ñu gëna bari te musu ñu nekk lu gëna bari nona mukk naka non tamit ñu nekk ñu gëna ñu ñu nekk ci koolute bu mat sekk te minan mu jiti ñu ñaar rak'a naka non gisoon nañu hadith euh, ce matin wa sayyidna euh, abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu نحن مملر الوحكم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعات من أربع ركعتان متقبلت متقبلتان من جلنا تجنا ينتي الله صلى الله عليه وسلم نار ركعه naka noonu sayyid ak sayyidna abubakar radiyallahu anhu ñaari ya rakka ak li nga xamantene ya moy mooy sayyidna umar radiyallahu anhu ñaari ya rakka topp nag mu daal takaliko manam yoni takaliko ci yeen ak neexon neexoon sama cër ci ñent rakka yi nek ñaari rakka rek yo xam nangula manam and ak loolu yep manam daf ko def manam daf na ñent rakka yi man and ak loolu ngir ne imaam bi mazhabam mom moy manam imaam bi mom moy mazhabam lañuy top manam limu gis-gisam mom lañuy top <clears throat> wuute gi ci gis-gis gi la waaye bu jëf jotee moom li imaam bi def rek la ñépp di def waaw te loolu maanaam comme ni ñu ko xamee woon day dox ci julli day dox ci lépp waaw ci wàll yëpp gisoon nañ tamit baabu sawmi yawmi arafa buntu woor bisub arafa ñu gisoon ci maanaam ne woor ko sunna la waaye ci ñi nekkul ci arafa waaye nag eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk arafa li ci ñoom mooy li nga xam ne moom mooy di xadis sayyidat umul fadl bi wax radiyallahu anha mu ne shakka nnaasu yawma arafata fi sawmi nabii sallallahu alayhi wa sallam fa baastu ila nabii sallallahu alayhi wa sallam bi shirabin fa shariba mu ne nit ñi dañ doon sikki sàkk ci bisub arafa ci koorug yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma daal di yabal jëm ci imaam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñuy naan mu daal di koy naan gisoon nañ tamit baabu talbiyati wa takbir iza xada min minan ila arafa buntu talbiya maanaam di wax labbayka allahumma labbayka ak di kàbbar ci bu fekkee ne dañoo xëy jóge minan jëm ca arafa maanaam loolu nan ndax ban lañ ciy def wala boog ñaar yëpp dagan na gisoon nañ ne ñaar yëpp dagan na te it eh, saxaaba yi radiyallahu anhum ñaar yëpp lañ doon def waaye eh, li nga xamante ne amaan na mooy li gën moom mooy eh, di maram kabar ñett manam moy kabar Allah akbar allah akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illa allah ak manam kabar ni da kabar kabar eed suñ ko paree manam mu def ko ñetti yoon masalan daal di tàmbali waat talbiya <coughs> mu bu ko defé manam daal di continuer di talbiya manam te lool gisoon nañ ci hadith sayyidina anas bi radiyallahu taala an ko laaje ne kayfa kuntum tasma'una fi hadha al yawm ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ana nan moom ngeen daan def maanaam ànd ak yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu mel nii mu ne kaana yuhillu min al muhillu fala yunkiru alayhi wa yukabbiru min al mukabbiru fala yunkiru alayhi mu ne de ki ñi daan te yëkkati seen kàddu di talbiya ñoom de daan nañ ko def te doonu leen ween dingat waaye ñu ngi doon kàbbar it doon nag kii kaaji kàbbar gi doon na kàbbar te it doonuñ ko woon diingat doonu ko woon diingat gisoon nañ tamit baabu tahjiiri wa bir rawaax yow ma rafa bis bi nga maanaam bunt bi nga xam ne moom wax ci eh, teel a gontu maanaam bisu arafa eh, te lool gisoon nañ xadis saydna eh, abdullah ibn omar bi radiallahu taala anhuma bi muy wax xajjaaj mu naan ko boo bëggee daal dawal maanaam mu ne ko ar rawaax in kunta turiidu sunna maanaam soo bëggee sunna maanaam doxal sunna daal maanaam jamono jii la maanaam dinañ gis ak bi ba bi nga xamante ne moom la ko ko Saalim wax ah, ne moom mu ne eh, mu mu ko ko Saalim waxee maanaam mu ne fajaala yanzuru Abdullahi ah, maanaam mu nekk di xool Abdullahi Seydina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu maa ne ko wax na dëgg maanaam wax na dëgg eh, ci ne ni ma war a doxale nii laa war a doxale li ma la digal loolu la niki noonu tamit Saalim wax na dëgg ne jamono jii la maanaam maanaam ñaari maanaam yooyu la amee maanaam que Saalim wax na dëgg. ak it ah, maanaam xajaaj maanaam wax na maanaam bu doxalee ni mu war a doxale loolu tam dana wax dëgg te saalimu li mu wax ah mooy man li ma la waxoon léegi mu daal di wax nag baabul wuquufi ala daabati bi arafa baabu bunt al wuquufi taxaw ala daabati ci kaw ah, daaba maanaam mooy waruwaay ci kaw waruwaay bi arafa ci arafa maanaam fii imaamul buxaari rahimahullah dafa nosee buntu bii di leeral ne Euh, taxawaayu arafa mën naa nekk ci maanaam nit ki wàcc taxaw comme ni nga xam ne noonu la maanaam waaye du charte rek ne laa budda dafa war a nekk koo xam ne daa taxaw maanaam bu yéegee ci waruwaayam loolu tamit mën naa ne waaye bu boobaa tamit bu mu nekk rek ne dafa yéeg ci waruwaayam taxaw fa maanaam ci diir bu yàgg suubu ba ngoon gi masalan nekk ci kaw waruwaayu waaye nag jamono mën naa nekk ci waruwaayu ci benn jamono boo xamante ne day yëkkati ay loxom di ñaan. wala boog di torox maanaam di toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa taala ngir ne loolu moo ëpp doore maanaam ci nit ki mooy gën a euh, ci lay gën a nof noppaloo que bu fekkonte ne dafa nekk di taxaw moom noonu kese nekkul ci kaw war warwaay toogul ci kaw dara bu boobaa mu taxaw taxaw toog ci kaw warwaayam di ñaan borom bi subhaanahu ak di toroxlu maanaam loolu moom mooy gën a noppale ci moom te loolu tamit mën naa nekk Ah, ala kulli xaalin li mu ci namm leeral rek mooy dagan bi nga xam ne moom la loolu dagan itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama eh, def na ko moo tax bu ñu waxee taxaw arafat jubluwuñ ci ne laa budda yow da ngaa war a taxaw naka noonu tamit eh, arafat bërëb yooyu yëpp arafa la maanaam fépp foo xamante ne ci biir eh, arafa la rek maanaam moom boobaa dañ dañ fay daal di mën a taxaw waaye du tamit lu ràññeeku nit ki taxaw ci doj boobu rek maanaam muy Euh, mooy euh, euh, jabalu raxma boobu noonu mooy boobu rek déedéet obligé wul waaye moo tax arafa rëdd nañ ko maanaam bu boobaa boo fa demee di nga gis fi nga xamante ne mooy tableau bi wane ni fii la arafa tàmbale ak fa mu jeexee itam danañ la ko wan ñu wërale ko loolu yëpp tamit walillahi alhamdu wal na loolu neex naa xàmmee xatta bi nga xamante ne jumaa ji dañ ko ay yaatal itam wane nañ fi nga xamante ne rëdd nañ fi nga xamante ne moom mooy fi lu dugg ci Arafat ci jumaa ji bu ko defé yow nga bañ faa teel a dugg bu fekkante ne euh manam fek julli guñu ñu ba noppi maanaam imam bi bu khutba ba ñu julli ba nopi ci ngay daali mëna nak dugg ci bir euh Arafa mun qala bi isnad al muttasil fi al kitab la yahdathana Abdullah ibn Maslama moom mooy ibn Qanab al Qanabi al Malik mu ibn Anas imaamu daarul hijra an Abi Nadr moy Salim ibn Abi Umayya al-Qurashi bi nga xamne mom lañu gisoon suñu jotaay bi wess an Umayr al Umayr moy mawla moy mawla umul Fadl moy mawla ibn Abbas fi mu tuddé ko mawla ibn Abbas muy Umar ibn Abdullah al-Hilali mu mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam fii dafa tudd daf ko tuddé mawla Abdullah ibn Abbas fële mu tuddé ko mawla umul Fadl maanaam radiyallahu maanaam loolu ñaar ñooyu mën na nekk maanaam ngir ne képp koo xam ne mawlaa la maanaam ab euh, ku ku ku ku ku ku ku mawlaa la ci euh, sayyidna na umul fadl mawlaa la ci sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu maanaam mbir mi boo ko wëlbatee noonu lay daal di demee itam mu ne an umul fadl bint al maanaam moom mooy euh, alhilaaliya lubaaba radiyallahu taala anha Euh, mu ne an na naasan mu ne naka nit ñi kat ixtalafu dañoo wuute indaha euh, fa moom yawma arafa bisub arafa maanaam nit ñi dañoo ñëw ci moom um sayyidat umul fadl radiyallahu anha maanaam mu gis leen nit ñi la di sikki sàkk comme ni mu waxee ci beneen riwaaya bi mu ne shakka naas euh, fii sawmi nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon yawma arafa bisub arafa fii sawmi nabi ci wooru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu daal di wax baaduhum ñenn ci ñenn ñi daan ne huwa moom yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam saaimun dafa woor wa qaala mu wax baaduhum ñenn ci ñoom ne laysa bi saaimin nekkul ku woor maanaam li tax nag mu liy solo yi laaj bi ak di ci wuute moom mooy xam lan moo gën ci diggante ñaari mbir yi ndax daañu ko woor waaw wala déet euh, loolu nag bu ñu gisee li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day def dañu daal di xam ne kon loolu mooy li ràññeeku mooy li gën te loolu ànd ak ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xirtal nit ñi ci ñuy woor bi sub arafa loolu moom moo koy ne na fa arsaltu ma daal di yabal ilayhi ci moom bi qadaxe labanin ci euh, ci këllub euh, meew maanaam kon bu boobaa la mu waxoon fële bi sharabin ci naanu xam nañ ni léegi maanaam ci riwaaya bi leer na ne këllub meew la wa huwa fekk moom waq waaqifun muy aji taxaw maanaam taxaw ci kaw arafa ay ba'irihi ci kaw gëléemam maanaam lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko maanaam boobaa nag dañ ci daana xam ne taxaw ci kaw maanaam toog ci kaw dabba yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam am na xadis bu mu wax ne euh, bu muy teree nit ki bu mu bu muy di taxaw ci kaw dabba di waxtaan maanaam loolu bu boobaa moom mooy bu fekkente ne nit ku doywul dara toog bi toog ci kaw dabba bi nit ki doyewu ko dara loolu bu boobaa du yelloowul mu ci taxaw maanaam muy toog ci kaw daaba bi noonu rek maanaam comme war sa fas noonu rek taxaw di waxtaan wala war sa fas noonu rek maanaam bëgg koo def lu féexluwaay noonu rek amul den lenn lu la tax a jóg wala boog maanaam bu boobaa loolu lu nekk loo xam ne lu yelloo la waaye su fekkente ne am na solo gu tax bu boobaa dana mën a ne comme ni nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw ci ajam bi daf doon yéeg ci kaw xaswa maanaam ci kaw gëllemam googu lu baree bari maanaam ngir war nit ñi ne nii la ñuy aje bu ko defee tamit nit ñi képp ku ko bëgg gis daal koy xàmmee ak yu mel noonu naka noonu war ci kaw waruwaay boobu moo gën a noppale ci buntu boobu loolu moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci lan moom moo gën diggante war bi taxaw bi ñi ëpp ci maanaam euh, borom xam-xam yi jàpp ne sax amaan na bu fekkente ne raj loo amul te ci waruwaay bu boobaa euh, te mën mën a war nekk bu boobaa war muy gën ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la def waaye ñi nga xamante ne ñoom maanaam ku ku mel ne al imam malik rahimahullahu taala naka noonu fuqaha yu bëri ci fuqaha u malik yi rahmatullah alayhim ñoom li ñu gënal liñ liñ dañoo yemale ñaar yëpp maanaam taxaw mën nga taxaw ko mën nga euh, wàcc yenent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu buntu leeral la maanaam nekkul ne amaan na loolu moo gën waaye dafa yenent bi sallallahu alayhi wa foofu daf doon wane ni taxaw ci kaw dabba ci lu mel nii mën naa ne rawatina ne taxaw ci kaw dàbba maanaam noonu rek rek rek ci te te mënoon a wàcc bu boobaa loolu mënoon a wàcc bi moo gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere gi mu tere nag ku toog ci kaw dàbba bi noonu rek mooy euh, maanaam ngir maanaam so so coono gi nga koy teg ci loo xamante ne mënoon naa ñàkk loolu moom la ci bañ euh, loolu moom moo tax wallahu aalam nee na nag ba mu ko indilee koon këll mi mu ko yabalee ci moom këllu meew moomu fa sharibahu mu daal di koy naan xadis bi gisoon nañ ko ci xadis numéro 1658 imam al Buxaari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 1988 ak 5604 5618 ak 5636 imam Muslim dina ko xadis numéro 1123 ñaari yoon imam Abu Dawud dina ko xadis numéro 2441 imam Malik ci Muwatta dina ko xadis numéro 1099 imam Ahmad dina ko xadis numéro 26 883 ak 26 885 comme ni gis ne xadis bi asxaabu kutubu sitta ñett rek ko indi mu imam Buxaari imam Muslim ak imam Abu Dawud amma imam Tirmidhi imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn wundiwu ko ci rahimallahu al-jamii mu ne baabul jame bayna salaatayni bi arafa baabu buntu al jame di dajale bayna salaatayni diggante ñaari julli bi arafa ci arafa li nga xam ne moom nag la ci nam moom mooy julli euh, tisbaar ak julli tàkkusaan maanaam boobaa dañ leen di jamu jamu taqdim maanaam dañ leen di jiital maanaam jiital goo xamante ne euh, taqdim la maanaam bu boobaa dafa am li nga xam ne moom nga yéene mooy da nga yéene boole gi benn mooy ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, da nga leen di toftale maanaam da ngay julli tisbaar daal di ciy teg tàkkusaan beneen bi ci des tamit moom mooy loolu moom mooy at tartib ñaareel bi ci ñetteelu sart bi moom mooy al muwaalaat maanaam moom mooy ne da ngay julli tisbaar boo sëlmalee rek doo ci teg lu bëri maanaam faslu bi wartu yi maanaam nga daal di julli li nga xamante ne moom mooy eh, tàkkusaan bi naka noonu booy julli timis ak gee ci waxtu timis noonu tamit ngay def amma bu fekkente ne beneen bi la moom mooy eh, eh, jamoo maanaam jamo jamu taqdim moom jamu taxiir maanaam boobu moom moo am bu boobaa li nga xamante ne moom mooy li war a xam yépp dëppoo ci benn charte rek lañ dëppoo moom mooy yéene bi maanaam mooy ne yéene bi kese nañ dëppoo bu boobaa ñoom ñëpp dëppoo wuñu ci tartib bi maanaam masalan tey boobu bu dee da ngay julli tàkkusaan ci tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu tàkkusaan ñu fekk ni ñuy julli tàkkusaan da ngay julli mun nga julli tàkkusaan ginnaaw nga soo paree nga julli tisbaar maanaam naka noonu bu dee waaye loolu waxu la joo xamante ne dëgërut comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon biñ ci tollee wal wallahu a'lam waaye teqantal gi nga xam insha allah taala dinañ ci ñëw ci maanaam eh, xaar gi ñuy xaar hmm, eh, maanaam eh, diggante maanaam muwaalaat gi maanaam toftale gi dinañ ci ñëw insha allahu taala ci xadis sayidna usama bi radiallahu taala anhu ci kanam mu ne qaala maanaam mu ne wakaana nekkoon na ibnu omar sayidna abdullah ibnu omar radiallahu anhu maanaam lii nag maanaam ci ja ci sa la maanaam lii moom ñëpp d'accord nañ ci ne julli gi lii jaamu yàlla gi ci boppam aj gi moom moo imposé maanaam mbir moomu maanaam moom moo waral ñu boole tisbaar ak tàkkusaan ah, war ah, te ca Minan maanaam boobaa lii maanaam ñoom ñëpp ànduñu ci woon ci ne loolu la ndax am na ci for borom ko xam rahmatullah mu jàpp ne daja gi li ko waral rek mooy tukki yi comme ñenn ci fuqahaa Maalik ci rahmatullah walla Euh, ñu dëppoo ak ñoom alors que boo xoolee Shafi'i ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci ñenn ci ñu bari ci fuqaha Hanafi yeeg Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom li ñu wax moom mooy mooy ne euh, daje dajale gi ñu dajalee lii moom li ko waral moom mooy euh, mooy jaamu maanaam voilà mooy mooy tukki gi tukki gi tukki gi moo ko waral ah voilà tukki gi moo ko waral maanaam dafa am ci Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñi Hanabila yi jàpp ne boobaa jaam yàlla gi ci boppam moom mooy li nga xam ne moom moo ko waral maa li ëpp ci borom xam-xam ñu jàpp moom mooy ne tukki gee ko waral comme Shafi yi ak Maliki ak ñenn ci xanafi yi ak xanaabila rahmatullah donte am na ci xanafi yi ak xanaabila yi rahmatullah ñu ci bëri ñoo xam ne dañoo jàpp ne tukki gi ci bopp maanaam euh, euh, jaamu yàlla gi ci boppam moom moo waral wàññi gi euh, dégg nga waaye liñ gi liñ gisoon moom mooy tukki gi la ci boppam moom moo ko waral ah ñu boole boobu nga xam ne moom la ñu boole ca Minan amma nag boole gi nga xam ne moom la ñu boole ca Arafat ak ba ñuy nar a boole ji ca Musdalifa loolu moom jaamu yàlla gi aj gi ci boppam moom moo ko teg maanaam kon loolu moom moo leen teqale moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeral fii ne dañuy julli mu nekk jamoo boo xam ne jamu taqdim lay doon maanaam dañuy jiital tis tis dañuy julli tisbaar bi ci waxtu tisbaar ba pare boole ko tàkkusaan ci jamonoy tisbaar maanaam boo xamante ne imam bi moom day xutba ba dab daal di jiite julli te boobu xutba tamit sunna la maanaam dafa nekk loo xam ne lu ñu sunnaal lu ñu yoonal la ci euh, ci euh, ci ci bu ko defee imaam bi daal di jàngale ñi nga xamante ne moom mooy li tegu ci wàllu aj gi ak yu mel noonu mu ne wa kaana ibnu omar saydna abdullahi ibnu omar ibnu alxataabi euh, radiallahu taala anhuma moom nekkoon na koo xamante ne Eh, ida faatatu su ko faatee asalaatu julli ma al imam ànd ak imam bi jamaa da daan boole baynahuma seen diggante maanaam kon eh, lii eh, imam al buxaari rahimahullahu taala di tax mu indi ko moom mooy day leeral ne su fekkente ne maanaam su fekkente ne dangaa boole dangaa julleendoo ak imam bi maanaam ci ngay da dangay da ngay boole waaye su fekkente ne dangaa Euh, julli yow kese yi sax tamit da boole ngir ne jam maanaam ngir ne jaam gi moo ko waral loolu nag moom mooy mazhabu jumhurul ulama ci fuqaha u maliki ak shafii ak xanaabila rahmatullah alayhim amma u xanafiya maanaam ak waa Kuufa ñoom ku mel ne al as-Sawri ak ñu mel ni ñoom rahmatullah al jamii ñoom dañoo jàpp ne ah, bu fi nga xam ne mooy boole bi moom ki ko mooy kii jullee ndoo ak imam bi ki julleewu bi moom du boole waaye li nga xam ne moom mooy li gën a moom mooy ne dañuy boole wallahu alam eh, eh, maanaam eh, wax ji nag ibrahima alxarabi yi solo na ko ci mana ci al manasikul xajj maanaam boo xamante ne téere la bu tudd manasikul xajj boo xamante ne moom la bind naka noonu imam sufyaan ibn said as-sawri solo na ci jaami bu mu bind moom tamit rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab ilay wa qaala layth mooy ibn saad rahimahullahu taala ci mom la solo we hadith bi te euh hadith la bo xamantene haqiqatan ci ki ko jël mom moy yahya ibn bukayr donte tuddu ko fii rahimahullahu taala mam yahya ibn abdullah ibn bukayr ci mom la jël hadith bi way fi mu mu ñëw rek daal di wax ne wa qala laysu moy ibn sa'd al fahmi rahimahullahu taala mo tax al ismaili moom jokkale na ko ci yoonu yaxya ibn bukayr ak ci abu saalih rahmatullahi alayhi maam ñoom ñaar ñu jële ko ci imam lays ibn saad rahimahullahu taala mu ne kon nag qaala moom mu ne xaddathani uqayl te moom mooy ibnu xaalid ibn aqil al ayli mu ne an ibn shihab muy az-zuhri annahu qaala axbarani saalim muy ابن عبد الله بن عمر ان الحجاج بن يوسف تمام وثق في عام عبد الله بن نزل وات النبي بن الزبير سيدنا عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما ما لم سالت الله عبد الله ما لم مم خيو خيو بن وخ 72 انا لا ام غيناو كدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم te xew xew bi moy jamono joj nga xamne sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu dañ ko dañu won day aji ji fas yene wala umrah manam day umrah fasay yene wala ak gi manam mom moy kon dafa dafa defoon xiraan waaye ba mu fase yéene def loola ñu ne ko ah mbaa gaa yi duñu xeex maanaam jëmmi at boobu ci la mbir mi am tamit maanaam xew-xew bi itam ci la amee ba mu naan moom waaw de toute façon buñ xeexeet ma def lu yeneen bi defoon rek sallallahu alayhi wa sallam euh, comme euh, maanaam at boobu la maanaam bu kon moom at boobu mu ne sa ala daal laaj moom abdullahi Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko kayfa ana naka te li taxal Xajjaaj laaj ko ko moom mooy Abdul Malik na Umar Marwan moom moo ko bind moo ne ko woon bul wuuteeg Abdullah ibn Umar dara radiyallahu anhu ci sa ci at gi maanaam kon euh, mu laaj ko Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko kayfa ana naka tas naa moom ngay def fil fii ci euh, taxaw gi yow ma arafa bisub arafa nan ngay taxawee fa qaala saalum saalum ne ko in kunta bu fekkente ne nekk nga koo xam ne turidu da danga nam da bëgg a sunnata sunna fa hajjir maanaam na nga teel a génn bi salaati ci julli yow ma arafa bisu arafa maanaam nga teel a génn kañ euh, ci bu jant bi jéng rek fa qaala abdullah abdullah ibn omar radiyallahu anhu fa qaala ne ko sadaqa du wax na dëgg innahum naka ñoom kat kaanu nekkoon na doon dajale maanaam ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu doon moy dañ doon dajale bayna zuhur diggante tisbar wala asr ak takusan fi sunnati ci sunna manam kon loolu hein li mom mo moo ak sunna fa qultu ma ne moo wax li salim ñaan saalim afaala zalika ndax defna afaala ndax defna zalika loolu rasulullah ndaw yàlla la sallallahu alayhi wasallam manam euh ki ko ko ko laaj mooy ibnu shihab az-zuhri mom az-zuhri mom mo laaj salim ne ko ndax ti yàlla bi sallallahu alayhi wasallam defna def loolu fa qaala saalum saalum daan ne waxal ndax tattabi'una dangeen ngeen topp fii zalika ci mbir moomu illaa lul sunnatuhu sunnaam maanaam mooy bi mu ne loolu mooy sunna ba mu ko waxee imam azuri daa bëggoon a xam ndax sunna gi mooy sunna yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam wala boog sunna xulafaa yi la wala boog sunna saxaaba yi la radiyallahu anhum mu ko nag ndax yenent bi ndax ndax di ngeen fi topp beneen sunna bu dul sunna yenent bi sallallahu maanaam mooy ne bu ñu waxee sunna jooyal ko sunna yenent bi lañ ci damm sallallahu alayhi wa sallam naam le dinañu topp sunna xulafaa ur raashiduuna yi radiyallahu anhum comme ni ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi comme ni maam li nga xamante ne noonu la nekkee lu fës ngir bu ñu royul saxaaba yi radiyallahu anhum saxaaba yi mënuñu roy keneen maanaam saxaaba yi lañ mën a roy ñoom ñooy suñuy imaam ndax ñoom ñoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee ci moom tibbee ci moom xam-xam boobu loolu nag ñun ñoom lañ mën a roy waaye li ñu ci bëgg a wax maam li mu ci namoon rek moom mooy ne bu ñu wax ni nii lañu war a def te nii la ñuy def amul leneen lu ñu def ci jaamu yàlla yi lu dul ne yéen ci yéen bi lañ koy jëlee sallallahu alayhi wa rawatina ci xaj bi ndax moom moo ne woon xudu anni ko jëlee leen ci man li nga xam ne moom ngeen di jaamu yàlla ci wàllu aj eh, kon loolu maanaam dafa nekk loo xam te ne lu ràññeeku la. Euh, njàngat yi nga xamante ne maanaam ñoom ñoo ci nekk tamit euh, ci bunt bi maanaam li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy euh, li mu ne kaanu yajma'una bayna zuhri maanaam kon daan nañ boole diggante tisbaar ak maanaam ak tàkkusaan ah, ba pare fekk ci jamono jooju mu ne ko na nga fa hajjir bis salaati yawma arafa maanaam lool mu ko wax ah, loolu maanaam na ko teel a julli bisub arafa mooy bu jant bi jéng rek jógal dinañ julli kon loolu day day leeral li nga xamante ne bu ko defee ñu teel a dem taxaw arafa ndax yu la taxawaayu arafa euh, maanaam li gën moom mooy ngir def ko ci jamono jooju li ràññeeku nag moom mooy euh, balaa jant bee sox maam nga nga ñëw arafa képp ku bëgg ak balaa jant bee sox nga ñëw arafa waaye bu fekkente ne rëcc na la tamit guddi gi mën ngaa maanaam ba balaa euh, fajar gi xam donte benn tiers la wala benn seconde la balaa fajar gi xar su la fekkee arafat mën nga aj ci at boobu bu fekkente ne nag fekku la arafat nag ak boobu moom moom moom nañ waxaat beneen beneen at waaye at boobu moom moom moom bokku ci dégg euh, nga mu ne kon nag euh, kon xadis bi gisoon nañ ko imaam Buxaari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 1660 dinañ ko indi léegi ci xadis numéro 1663 imaam Abu Daawud indi na na ko xadis numéro 3005 3009 ko xadis numéro 3009 moom itam solo nañ ko ba mu des imaamu Muslim ak imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ma waxon nañ ne hadith bi daf bok ci li nga xamné mom mom la imam Bukhari wul wéetu woon imam Muslim rahimallahu al jami muna babu qasr al-khutbah bi arafa manam buntu bi dafa babu buntu bi manam qasr al-khutbah mom moy day gatal xutba bi bi arafa ta arafa manam li nga xamante ne moom lay bëgg wax manam mom moy ne kep ko xamantene dangaa war a euh, xutba maanaam xutba bi nga xamante ne moom la euh, imam bi di def euh, ci arafa maanaam dafa war a nekk xutba goo xamante ne dañ koy gàttal waruñoo nekk xutba boo xamante ne dañ koy guddal li nga xamante ne tamit moom mooy xutba yi nga xam ne moom la imam bi di def ci wàllu aj maanaam te ñu sonnaal ko mu nekk ne maanaam imam bi daf koy def moom ak képp wala boog képp koo xamante ne moom imam bi moom moo ko teg samp ko ñoom maanaam xutba yooyu buñ ko xoolee Eh, maanaam eh, ñetti xutba la maanaam ñetti xutba la lay def te waaye nag fuqahaa Shaafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñeenti xutba la maanaam xutba bu njëkk bi moom mooy xutba xutba bi ñu def mu ziinati maanaam mooy juróom-ñaareelu fan bi moom la ñu tuddee mu ziinati comme ni ñu tuddee yawmu tarwiya maanaam juróom-ñetteelu fan bi ah li euh, ñu tuddee yow mu arafa juróom-ñeenteelu fan bi maanaam bii nag moom la ñu tuddee maanaam juróom-ñaareelu fan bi xutba googu borom xam-xam fuqahaa xanafiyee maaliki shafii rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne loolu sunna la maanaam nga xam ne imam bi day jàngal nit ñi li nga xam te ne moom mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñu war a def ci aj bi maanaam ne ah suba de dinañ di ngeen dem minal minal boo leen fa demee nangam nangam soo leen fa jógee da dem arafat boo leen fa jugee da ngeen dem mustalifa boo leen fa jugee maanaam wax waxuta maanaam loolu leeral li nga xamante ne moom mooy li ci des ci li ci aju ñaareelu xutba bi moom mooy bi nga xamante ne moom lay dañuy def ci euh, masjidu namira comme li nga xam ne noonu lañ ko gisi woon euh, ci foofu imam bi daf koy def laataa muy jiiti nit ñi tisbaar ak tàkkusaan maanaam ci jamono takk dim boobu foofu nag bu boobaa day daal di xiirtal nit ñi ndax maam ci ñu xiir maam ci ñu ñu def maam ñu muñ ñu def effort maam jaamu yàlla <coughs> di ñaan di jaamu yàlla ci bisub arafa ndax maanaam ak li nga xamante ne moom moo ci aju te loolu noonu dafa am solo maanaam xutba googu nag euh, comme ni ñuy xutbawee bu ñuy julli tisbaar ak tàkkusaan la maanaam moo tax imaamu Maalik rahimahullah da doon maam ni ñuy xutbawee bu ñuy julli xit ak bu ñuy julli euh, bu ñuy julli euh, ajjuma la voilà maanaam mooy ne xutba googu euh, dañ koy wax moo tax imaamu Maalik rahimahullahu taala doonul maanaam doon wax ne xutba gi euh, bépp xutba boo xamante ne dañ koy julli rek daa war a am euh, daa maanaam bépp xutba rek boo xamante ne dañ koy def ci julli maanaam julli gi dañuy wax dañuy jàng ca kaw ñu mais ñu gaaral ko bii ñu ko bii bii ñuy def arafa mu ne non boobu pour aj bi la moo tax maanaam du du pour julli gi mais pour aj bi la xutba googu wala manam pour jangal nit ñi seen euh, waluk adla euh, amma khutba bi nga xamantene mom lañu la def ci juróom-ñaareelu fan bi manam khutba gogo amul amul tok manam benn khutba kese la manam ngir rek jangal la manam dañuy imam bi mom mo tok waxtaan ak nit ñi jangal leen nga xamantene mom moy lu addu ci seen waluk ak amna ñettelu khutba euh, manam bobu nak mom moy bi am bisub tabaski mo yow mu naxari ca minan lay amé manam bobu tamit ñi nga xamne ñom ñoy ñooy xana xana Shaafi'i ak Xanaabila yi rahmatullah alayhim ñom ñoo jàpp ne bis bobu lañ koy def manam fofu lañ wuté ñeneen ñi euh bobu ñeneen ñi muy fuqahaa Xanafi ak maliki rahmatullah ñom nangu nañ ne daañ def khutba bobu waye euh ñom bi fukkelu fan beeg ben lañ koy def manam ci ñaarelu fan ba ca euh ca Minan manam fofu lañ koy def bobu 11 jours 11 jours voilà muy onzième jour bi ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaaw xanafi euh, yi euh, ak maliki rahmatullah alayhim ñoom loolu lañ lañuy lañ lañ koy wax maanaam boobaa imaam foofu lan lay jàngale mooy li xam ne moom moo aju ci wàllu maanaam bisub tabaski liñ ci war a def liñ ko war a defare yu mel noonu ak it maanaam dagan yi nga xamante ne moom la dagan ñu war a mën a teel a mën a ñibbi maanaam ak yu mel noonu daal ak li nga xamante ne yooyu la ñu war a jiital buñ jugee fii lan lañu war a def maanaam loolu la ñuy Euh, la ñuy lañuy ñuy la euh, moom la la leen di la leen di lay def ba pare def leen di tàgguwaale itam maanaam wax leen waaw léegi nag at bi jeex naa sant leen yàlla nangam nangam maanaam ci jaamu yàlla gu mat gi et cetera maanaam tàgguwaat tàggu euh, tàgguwaale leen maanaam kon yooyu ñoom ñooy xutba yi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam boobu ah, moom maanaam bu dee maam Shafi'i tamit ak xanaa Xanaabila rahmatullah alayhim maanaam ñoom dañ ne euh, ci boobu boobu xutba boobu nag mooy bu mujj bi ci ñaareel bi lañ koy def maanaam ñaareelu ayyaamu tashriiq yi maanaam foofu lañ koy def voilà maanaam kon ci kaw loolu dañu daal xam ne kon euh, yooyu ñoom ñooy ñeent xutba yi nga xamante ne ñoom ñoo mën a nekk ñoom ñoo jàppandi euh, te yooyu lañuy def maanaam bu ko defee. xanafi yi tamit rahmatullahi ñoom am na ci juróom ñetteel bi ñoom maanaam bisu mi maanaam dañu boobaa kon ñoom dañuy def juróomi ñaareel fan mu yowmu zinati ak ñaareel bi ci des moom mooy yowmu tarwiya beneen beneen bi ci des moom mooy bisu arafat voilà am na tamit ci ñun ñoom ñoo xam ne dañu def bisu arafat la ñuy def maanaam bisu euh, yowmu tarwiya la ñuy def yow mu zinati la ñuy bàyyi mu tarwiya la ñuy def foofu ca mi nan ñaareel bi ci des moom mooy bisu arafat ñetteel bi ci des moom mooy euh, bi ñu def bisu maanaam euh, mooy ay euh, ci ñaareel maanaam ci ci fukkeelu fan bi ak benn maanaam kon loolu moom mooy xutba yi nga xam te ne maanaam ñoom ñooy yi yi ñu yoonal ci wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim comme niñ ko gisee woon nag yii yëpp nag day daal di aju léegi ci mësabu imam bi maanaam imam bi yan lan la gis ne moom moo gën nan lañ koy doxale ak lan moo moom moo war moom mooy décider te lu mu def tamit noonu la moom la ñëpp yi topp maanaam ko ku ku ku jàppoon leen itam maanaam bu mu ne way maam bi de façon li mu def dëgërul gën a wér nangam nangam déedéet ngir ne wuute la yu borom ko xam yu wuute de façon ñu ko ëpp xam-xam mës nañ ko def ñu la ëpp xam-xam mës nañ ko def maanaam kon yow euh, maanaam nga bàyyi ko moom ci gis-gisam loolu nekkul loo xamantene lu aay la amaan amaan nag sooy jàngale wala ngay wax wala yu mel noonu mën ngaa wax ne man ni gis naa ne lii moo gën a dëgër wala yu mel noonu wallahu a'lam xanaa mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Mas'ud mu ne qaala bal qaala bi mu ne qaala akhbaranaa malik muy imaam Daaru Hijra an ibn shihab muy az-Zuhri an salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al khattab رضي الله تعالى anhumaa maanaam moom mu ne mu ne anna abdalmalik ibn marwan rahimahullahu taala kataba binna lal xajjaaj mu ibnu yusuf athaqafi an ya tamma mu ne nag roy bi abdullah ibn omar mu ibnu alxataab radiallahu taala fi lxajj ci ajji fa lamma kaana ba nga xam ne nekk na yowma arafa bisub arafa jaa ci la dikkee ibnu omar seydna abdullah ibn omar radiallahu anhu ma wa ana fekk man maahu man man saalim maahu maa ngi ànd ak moom xiina jamono ji nga xam ne zaaxat ci la jénge ash-shamsu jant bi aw wala boog zaalat ci la toxoo maanaam di jeng maanaam toxoo hmm? euh, euh, maanaam mooy zaala maanaam moom mooy xam nga zawaalu shamsi moom mooy toxu jant bi zaala mooy toxu na voilà euh, comme ci aaya bi naan bi bi aaya bi maam Adama maam borom subhaanahu wa bi naan fa azallahuma anha manam ay bob manam amna ci riwaya fa azalahuma anha manam moy daf leena tokhal aljana amna wala manam kon euh nga moo tax mu ne bi nga xamantene mom la manam kon jamono jant bi bi tokha mo ne fa saha mu dadi euh yuuxu manam mooy mu wax ci kaw rek inda fustaatihi maanaam mu woo ko ci ca fustaatam mooy pavillon bi mu nekkoon moom mooy Euh, comme niñ ko gisoon mooy tànt buur bi rek tant yooyu moo ne ayna haza ana kii maanaam xajjaaj la doon wax ayna haza ana kii fa xaraja mu daal génn ilay ci moom fa qaala mu ne ko al-aana léegi la ñu dem qaala mu ne ko naam waaw léegi al-aana qaala mu ne ko naam waaw qaala mu ne ko anzirnii nag ma ufiidu ma daal bëbb alayhi sama kaw maa an ndox maanaam mooy ma sangu rek maanaam ma sotteeku ndox maanaam maanaam ma xëppoo ndox comme ni ñu koy waxee maanaam li muy tekk moom mooy may ma xëppoo ndox mooy may ma ma sangu fa nazala mu daal wàcc ibnu omar seydna abdullah ibnu omar radiallahu anhu ba nga xam te ne xaraja ci la génne fa saara maanaam mu nekk ko fa nazala ah mu maanaam mu mu ko fa saara ah, mu mu tukki maanaam muy dox bay nii sama diggante ma bay na ab yi ak sama bàyyi maanaam Euh, salim moy nettali manam mu dox sama diggante sama baye faqultu qultu in kunta bu fekkente nam nga turidu euh, da in kunta bo fekkente ne yow day nek nga ko xam ne turidu da nga nam antusi ba ci nga dag deug deug as sunnatul sunna moy ne yenen nabi sallallahu alaihi wasallam don def al yawma tay di faq nga gattal al khutbat khutba bi manam kon gattal khutba bi tamit manam waro nek tamit khutba khutba yu gudd gudd gudd gudd loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy sunna maanaam xattaa ci àjjuma maanaam loolu sunna la bu ñu gàddaay moom mooy xutba yi day gàtt waaye tari bi mooy gudd maanaam julli tari bi mooy gudd ci àjjuma loolu sunna la bu ñu gàtt léegi xutba bi day gudd waaye bi mooy gàtt dégg nga euh, loolu mu ne kon nag kon bu fekkente ne nam nga loolu rek ci laal sunna dëgg-dëgg rek foog sunna nga gàttal al xutba xutba bi waaj jël te nga gaawee al wuquufa taxaw gi maanaam comme que bëgg ngaa daj sunna léegi defal loolu fa qaala ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhu ne wax na dëgg maanaam kan Saalim na dëgg maanaam ni mu doxalee noonu la euh, xadis bi kon gisoon nañ ko léegi ne gisoon nañ imaam Buxaari nag xadis numéro 1660 ak 1662 euh, fii la ko mujjee indi maanaam euh, jeex na dootu ko indati comme ni ñu gisoon taxrij bi léegi ne xadis bi euh, waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam ak imam at mu bokk xadis yi nga xam te ma buxaari daf ko wéetu wala imam anna imam muslim rahimallahu aljamii mu ne baabu taajili ilal mawqif baabu buntu maanaam nga gis buntu bi mu wax léegi euh, li mu ci doon nettali mooy xutba bi mu ne baabu buntu at taajili gaawe ilal mawqif yi taxawaay bi maanaam euh, nii noonu la nekkee maanaam ni amul leneen maanaam lii rek la nett nettali maanaam ba bunt bi day wax ne dañoo war a gaawee lan ci mawqif bi ah, indiwu ko naka noonu loolu moom moo tax bunt bi ci riwaaya Abu Zar ak riwaaya Ibnu Asakir rahmatullahi alayhi maanaam riwaaya bi ñëwu ci maanaam bunt bi ñëwu waaye am na ci euh, maanaam imaam al Buxaari rahimahullahu dugal na ci bunt bi wax joo xamante ne dafa ne yadxulu fil baabi xadiisa malik an ibni shihabin yaani alladi rawahu an salim wa huwa almadkur fi lbaabi alladi qabla hada walakinni uridu an adxula fihi gayra muaad loolu moom mooy li nga xam ne loolu la wax maanaam ne bunt bii de a xadiisu imaamu malik bi ma nettali léegi mooy bi ñu nettali léegi te mu jëlee ko ci Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi mu jël ko ci Imam Malik mu jël ko ci Ibn Shihab az-Zuhri mu jël ko ci Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu nettali ko maanaam diggante ma Hajjaj mu ne loolu loolu mën na maanaam mënef na koo dugal fii waaye nag li nga xamante ne moom laay bañ mu mu ne damay bañ indi ci xadis bi ci benn maanaam ci ci benn euh, euh, bugguma dugal ci téere bi loo xamante ne dañ koy baabu maanaam mooy ne imaam al Buxaari rahimahullahu taala saa yu indee xadis ba pare indiwaat beneen xadis rek mooy lan mooy ne am na faida isnaad sanad isnaadiya wala matniya am na njariñ gu nekk ci càllale gi wala njariñ gu nekk ci baat yi ci boppam jamais imaam al Buxaari rahimahullah wala bokk lu ko su ko defee rek maanaam lu raara raara raara moo ko ci rëcc ci téere bi ci lan te te bu boobaa ay mbir yu yu sorentee lay doon maanaam yu sorentee sax lay doon ay bunt yu sorentee mooy ne day wax ci benn téer day wax benn xalis maanaam du wax mukk benn xalis boo xamante ne boo xoolee xadis bi moo xam càllale gi ak baat yi lépp benn la ba pare mu jël ko ba pare indiwaat ko feneen daa iman dina am lu ñu wute dina am ne serait que benn baat bu ñu wutee daa iman dina am ne serait-ce que wala boog bu baat yu wutee bu càllale gi wuutewul rek xamal ne baat yi am na lu ci wute am na luñ ci yokk am na luñ ci wàññi bu yokkee bu dee kàddu gi ñëw na maanaam bunt bi euh, teg nañ ko euh, maanaam maanaam kii bi xadis euh, bi in ñëw na su dee baat yi benn la di nga gis ne la gi dana wute maanaam comme masalan au mu wax xaddasa abdullah ibn masamad ibn qaanaba mu ne mu ne xaddasana qutayba masalan wala xaddasana abdullah ibn ci imam malik lay jóge maanaam comme nii mais comme que xadis bi moom ci Abdullah ibn Maslama rek la ko jàngee boobaa moom daf koy jëlee ba pare indiwaat ko ba pare indiwul leneen lu ci yokk maanaam comme que loolu amul ci lenn lu ci mën a soppi nag te indiwoon na ko ba pare indiwaatoon na ko maanaam ñetti yoon indi na xadis bi ñetti yoon ci ngi ko solowee maanaam indi ko ci euh, Abdullah ibn euh, Maslama ibn Qanab al-Qanabi maanaam gis na ne ñu maanaam solowoon na ko ci moom euh, ci beneen bi ci des. riwaaya la boo xamante ne da maanaam indiwul dëgg-dëgg ci ki mu ko sol ndax imaam al la ibnu Sa'd beneen riwaaya bi moom mooy bi nga xamante ne moom la soloo ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi maanaam kon dañuy gis ne day daal di jeex maanaam kon moom ni mu ñu maanaam yoon yi mu solowee xadis bi yépp jeex na mu Muwatta ñaari ci ñaari ci Muwatta ci mu soloo ci imaam Buxaari am ci ñaari yooyu la ne naam xadis bi nekk na ci Muwatta bu Yaxya ibn Yaxya comme ni ñu ko gisee Yaxya ibn Yaxya al-Laythi rahimahullah taala xadis bi nekk na ci ci ci riwaay boobu waaye dafa nekk tamit ci riwaaya xadisu abdullah ibnu maslama ibnu qaanab al-qaanabi ak ibnu yusuf at-tinnisi bu nekkoon ci masalan ci xad ci euh, bu bu bu imaam ibnu wahb wala bu qutayba bu qutayba ibnu sa'id doon na ko indi voilà wala boog mu solog ci ismail ibnu abi uways maanaam bu nekkoon ci Muwatta bu Ismaïl ibn Abi Uways plutôt ak bu Iyaad ibn Wahb doon na ko indi rahimahullah mais indi mais nekkul ci yooyu loolu moom moo tax Imaam Buxaari ne comme dootu indiwaat parce que ci yi ma ko am ci Muwatta mu soloo ko ci Imaam Maalik loolu moo tax mu ne xadis bi mënoon nañ fi indi xadis ibnu Maalik Imaam Maalik bi rahimahullah waaye nag maanaam mooy lan mooy mu nettali jëmmi li nga xam ne moom la doon nettali te mooy lan mooy li Saalim ne ah ne Xajjaaj boo bëggee sunna maam na nga gàttal xutba gi te nga gaawee génn dem taxaw ci arafat bi munoon naa ko indi waaye bëgguma répété waat même xadis bi euh, ak même càllale gi loolu moom moo tax imaam Buxaari kon day gis ne loolu benn qaayida la bu mag ci imaam Buxaari raximahullah ni mu tëralee xadis bi moo tax dina indi benn xadis indi ko ci bunt yu bari mais boo xoolee càllale yi day wute wala boog kàddu yu wute tamit wala boog fenn fi mu indi ko mu gàttal fenn fi mu gudd ak yu noonu waye ala kulli hal li nga xamantene mom la ci namte te moy atté buntu bi mom moy lan moy taxaw gi ñu wara taxaw arafat te it gaawe nga xamantene mom lañ ko wara a lool mom sunna la comme niñ ko gisee léegi li nga xamantene tam mom moy li ci gëna euh manam ba fa mu yem nga xamantene mom mëno ko baña def mom moy moy moy jant moy moy moy moy moy moy moy moy bisu arafat yëpp jeex manam motax bis mi ngi jeexee fan fi benen fajaru beneen bis bi tàmbalee foofu la bis jeexee loolu moom moo tax bu buñ ne yow mu arafa bisu arafaat boo taxawee ba maanaam bu la fa fekkee bu la fekkee palaasu arafaat ak fu mu la fekk donte euh, dangaa teg sa benn tànk rek teg bi ci des rek fajar gi xam bu boobaa bis boobu ak boobu aj nga léegi nag après da ngay daal di rek delluwaat ndànk dem Musdalifa voilà nga obligé lo nga julli euh, euh, ci ci masjidu wala nga julli ki euh, obligé wu ay sunna voilà bu la dal vous da ngay da ngay da ngay wallahu alam mu ne mu ne mu daal di teg imaam Buxaari rahimahullahu taala daal baabul wuquuf bi arafa baab buntu al wuquufi maanaam mooy taxaw bi arafa ci arafa baabul wuquufi bi arafa kon loolu day leeral taxawaayu maanaam arafat maanaam kon imaam Buxaari rahimahullahu taala dafa doon wax ne maanaam day leeral ne fi ñu la laaj nga taxaw fa mooy fi nga xamante ne moom moo dugg ci arafa waaw mooy waat waat yi orona ak waadi namira manam lolu mom la bok fofu yep ak arafat fofu yep arafat la ak doj bi jabal rahma fo ci taxaw baax na euh muno manam masalan dem manam taxaw fu la nekh fenen lolu munu nekh manam faaw kon nga dugg bir arafat lolu mom moy manam kon ci kaw lolu dañu xamne taxaway arafat te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne alxajju arafa ak arafat maanaam moo tax la ci moo tax moom mooy keroog bi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci voilà nga xam ne moom rukkunu la ci bépp boo ko bàyyee bu ne bu la rëccee bu nekk sa sa aj baaxul bis maanaam ful fépp feneen mën na gaa rate ñu xool nan ngay def ba rattrapé ci yenn mazhab yi wala yenn gis-gis yi wala yooyu waaye Arafat moom soo fa teewul moom bu ñu xoolee ñu ne ah jour beneen bi ci des la mooy na 10 jot na jour Tabaski jot na te jotoo dugg bi maanaam fajar gi xar na te jotoo dugg biir arafa moom moom moom bu la neexee mën ngaa xaar ba déwén maanaam huit jours bu déwén na nga dellu te da ngay obligé nekk ci armal boobu maanaam ba déwén bu alxuraan daf mais loolu moom mooy su dee tàmbalee ko moo tax alxuraan naan wa man ta'ajjala fii yow fii fii yawmayni falaa isma alayhi voilà maanaam ku ku ku ku ku wamanta ah nit ki mën na ta aj maanaam teel te ñëw mais fii yow ma ne ñaari fan rek moo tax aj nit ki mën na koo def ci ñaari fan kese nu muy def arafat lay ñëw bisub arafat rek lay yegsi voilà ku ku ku ku amul jot mën na koo def de noonu aj la bisub arafat ngay ñëw dem directement arafat soo paree nga dem Musdalifa def yi ñuy def yëpp ba Tabaski nga def li ngay def dem def sa tawaafu ifaada def sa tawaafu wadaa ñëw dellu si Minan euh, comme munoo fanaan Minan nga tuur deret dem sa yoon jeex na ak nga ci ñaari fan waaw kon mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Ali ibn Abdullah mooy ibnu al-Madini mu ne qaala haddasanaa Sufyaan mooy ibnu Uyayna qaala haddasanaa Amr mooy ibnu Diinaar al-Makki mu ne qaala haddasanaa Muhammad ibnu Jubayr ibnu Mut'im doom la ci Sayyidinaa Jubayr ibnu Mut'im radiyallaahu ta'aalaa anhu Muhammad ibnu Jubayr ibnu Mut'im ibnu Ali ibnu Nawfal ibnu Abdi Manaaf maanaam al-Nawfali Eh, Abu Saïd mooy daqantala la bok ñetteelu generation bi gennu aduna sanjum ene gina gadda Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamono sirna amar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala ndax mom sirna amar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mi ngi gennu aduna cent ñu ene gina gadda Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, kon eh, mom mu qala qaala mu an abi mu jële ci baye mu sirna jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala mu kuntu nekkon na aklu bu doon sak ba'iran ab gëléem lii ñeel ma maanaam dama doon wër suma gëléem boo xam te ne dafa réeroon mu ne xaa maanaam jóge nañ ci càll googu ñu ngi jàll ci beneen càllale di wëlbatiku nañ wa haddasana tamit kan musaddad ibnu musarhad ibnu musa abul hasan albasari al asadi rahimahu taala mu ne qaala haddasana sufyaan mu ibnu uyayna an amrin mu ibnu ah, sufyaan ibnu uyayna Euh, naam waa Basara la mais Musaddad solo na ci ñaari Sufyaan yëpp Ibnu Uyayna ak euh, Ibnu Sa'iid as-Sawri naam maanaam donte waa waa Basara la maanaam ah, Ali ibn al-Madini tam waa Basara la mm-hmm. ah voilà Hayyatul Waadi te moom solo na ci kan Ibnu Ibnu Uyayna mu ne qaala haddasanaa Amr muy ibnu dinar annahu qaala sami annahu samian dégg na muhammad ibnu jubair muy ibnu mutan, an abi mu jële ci baayam jubair ibnu mutim radiyallahu anhu qaala mu ne adlaltu sànq naa dama réeral ba'iran ak gëléem lii ñeel ma maanaam gëléem ba'ir mooy gëléem goo xam ne dañ koo daa am bagage mu wax ba'ir euh, kon nee na fa fa zabtu ma daal di dem atlubuhu ma arafa bisu arafa ah muy wër sama gëléem bisub arafa <laughs> Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu nee na xadis euh, bi boo ko xoolee dangay ngay foog ne xajjatul wadaa la du woon xajjatul wadaa nag aj bii nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon jaar mën a jaahiliya la woon maanaam loolu la maanaam loolu moo foofu la la la. Euh, la sew-sew bi nekkee maanaam ku mel ne al Suhayli wala ñeen rahmatullah alayhim ci borom xam-xam yi dañoo jàppoon ne xajjatul wadaa la ñu indi ay questionnement yu bëri bëri bëri autour lan moo tax mu wax lii lu tax mu doxali lii lu tax lii lu tax maanaam parce que dañoo jàpp ne xajjatul wadaa la déedéet du woon xajjatul wadaa te euh, li koy tegte mu ne faraaytu ma gis annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaqifan mu taxaw bi arafa ca arafa maanaam ma ñëw gis yonent bi sallallahu mu taxaw maanaam affaire bi jaaxal ko fa qultu mu ne haada kii di wallahi waat naa ci yàlla ne min al xumsi ci ñiy taral la bokk maanaam ndax xums maanaam wooy waa Quraysh dañ la daan wax al xums maanaam ñu bëri na waa banu kinaana waa banu xuzaa awsa xasraj maanaam ñooñu ñëpp dañ la daan wax ak ñen maanaam dañ la daan wax al xums lu tax parce que dañ doon taral masalan ñoom dañ doon jàpp ne arafaat du arafa lañu war a taxaw ñoom musdalifa la ñuy taxaw moo tax alquran ni leen summa afiidu min xaysu afaada naas maanaam dem leen ngeen dem leen ngeen jugee ci arafaat fi nit ñépp di di jóge ñëw musdalifa bu leen yem musdalifa moo tax moom léegi moo tax jóge mu teg loolu moo lay wan ne aaya bi maanaam aaya bi comme que wàcc na ginnaaw gi te moom fekke xam na ko donc loolu moom moo lay wan ne ay ah, maanaam moom waxam ji mooy jamono jaahiliya la woon ci jamono jaahiliya ci la affaire bi amee woon mais nag moom dakaa jaaxaloon lan moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom bokk ci kuré maanaam groupe boobu Quraysh ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ñu tuddee la woon alxams maanaam mooy ñoo ñu xam ne dañuy taral ci diine ci parce que am yu bëri yoo xamante ne dañ ko doon dañ ko doon kii masalan Ah, am na maam ñu woon lekk yàpp jamono yu aj ñu woon maam yu bari bari ñu taral teg ko ci seen kaw kii moom ma gis ko arafat gii quoi maanaam moo taxaw ni hada wallahi man xam sa kii ci gars yi xam mais lu tax lu muy def fii ko mu ne fa ma sha'nuhu ana lan mooy mbiram xaaxu naa fii maanaam lu muy def fii waaye bi mu tuubee ba dugg ci lislaam ba yeneen bi sallallahu alayhi maanaam ba aj wàcc maanaam yooyu yëpp xew ci la xam ne yàlla daka ndekete yàlla yeneen bi saa sam yàlla xattaa jamono jaahiliya daka daan xiir ci rek ci li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg li baax maanaam euh, moom kon ci la jàngee maanaam ci la xamee xikma bi tax yàlla xiirul yeneen bi sallallahu ànd ak moom seen waa kër yëpp seen mbokk yëpp mustalif lañ daan taxaw moom muy wër ab gëlle bu réer mu ñëw gisu ko Arafat mu xool gis ko gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw fa ah <laughs> ndax yenent bi sallallahu jamono jaay lay aj ne ay comme ni ko gisi woon ci lislaam la aj benn aj kese muy xajjatul wadaa hmm. voilà moo tax laa laa bi maanaam ñetti yoon la yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam waaye ginnaaw lislaam bi maanaam bi bi bi ñu Eh, warale aj gi ci la yent bi sallallahu alayhi wasallam aj benn aj kese muy xajjatul wadaa sallallahu alayhi wasallam wallahu alam maanaam eh, xadis bi imaam Buxaari rahimahullahu taala fii rek la ko indi maanaam ci nii imaamu muslim na ko xadis numéro 1220 imaamu Nasaa'i na ko xadis numéro 3013 imaamu eh, Ahmad na ko xadis numéro 16737 ak 16757 kon ni gis na xadis bi asaabu kutubu sitta ñett rek la ko indi imaamu Buxaari imaamu muslim ak te dañuy gis ne képp ku ci di benn yoon rek nga ko ci indi ah, ah, amma imam abu daawuda moo tirmisi ak imam nu maaji ñoom indiwuñu ko raximallahu aljamii هنا قال بالاسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا فروة بن ابي nañ ko gis ci kitaabul ah, janais ci kitaabul janais ndax imam Buxaari raximahullah taala ci fii la ko indi maanaam kitaabul janais kitaabul xajj fii dina ko indi tamit kitaabu bu yor waaw mais bëriwul lu mu ci moom beneen bi ci des moom moo ne moom dafa bokk ci afraadul Buxaari yi moom Buxaari rek moom moo soloo ci moom maanaam te bu solowee ci moom ci euh, Ali ibn euh, wala Ubayda ibn ñaar ñooñu tamit lay solowee ci ñoom beneen bi ci des tam moom moo euh, maanaam imam Abu Xaatim ar-Raazi Abu Urwat Abu Zura ar-Razi rahmatullah maa ñoom ñaar tamit nañ ci moom seen sëriñ la waaye ñoom dañu ko wax dañoo wax ne moom saduq la ah, rahimahullah taala waaye moom Buxaari rahimahullah daf koy layee ah, comme ni moom al Daaraqutni waxee ne moom siqa la ah, rahimahullahu taala moom Ibn Hibbaan boole ko tamit ci siqaat yi al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah dafa topp كمي إيه، أبو زرع وحرحة الله عليه ما رأت أبو حاتم دامي صدوق من قال حدثنا علي بن مسهر رحمه الله تعالى القرشي أبو الحسن الكوفي رحمه الله بسنة القاضي لون من قال موسيل رحمه الله تعالى جنا بوك جرم يتم جراسة وجنا مساكة أنا جنا قادة انتفساسة من عرش شابه بن عروة بن زبير ابن عوام من قال قال عروة بن زبير من كان نكون الناس من يطوفون يرى الطواف fil jaahiliyati ci jamonoy jaahiliya dégg nga imaam Buxaari raxmatullaahi taala dafa indi waxu euh, wax ji maanaam di leeral lan di leeral ne di lële ci jamonoy jaahiliya la woon moo tax mu ne nekkoon nañ doo xam ne daan nañ ci daan mu ne uraatan di aji raf la illa alxams moom des alxams maanaam mooy ñuy taral ne mu ne wal xams ñooñu nag qurayshul wamaa wala dat mooy quraysh ak ñooñu jur donte am na ñeneen ñu ci bokk ah, moom waa banu Xuzaa waa banu eh, maanaam waa Aws Xasraj ak ñooñu ah. mu ne wa nekkoon na alxams ñoom de ñooñu di taral mu ne yaxtasibuuna eh, dañ daan eh, yan maanaam dañ daan am cër alal naa ci nit ñi maanaam mooy dañ daan fexe di opérer ci nit ñi maanaam di di di di am nu ñuy gañe ci nit ñi wala boog di am cër ak gëdd ci kaw nit ñi mu ne yooti doon na joxe ar rajulu benn waaye ar rajula beneen waaye asiyaaba yéreem yére muy tawaaf fii haa ci moom watooti te muy jox almaratu jigéen ji almaratu jigéen jeneen jigéen ji asiyaaba yéreem tatuufu muy tawaaf fii haa ci moom fa man képp nag koo xam ne lam yooti yi joxu ko alxamsa waaw ah, mooy ñooñu Quraysh ak ñu ñooñu ñuy àndal képp ku ñu joxul yére rek taafa day daal di tawaaf bil bayti ci kaaba gi or yaa daal di aji la maanaam comme niñ ko gisee woon maanaam ne soit yére euh, ñoom waa Quraysh ñoo la jox yére suñ la joxul yére wala boog soo ñëwee nga indaale yére waaye yére boobu soo paree da nga ko dootoo ko solati ak yu mel noonu comme niñ ko gisee woon voilà loolu ñoom noonu lañ ko daan def wakaalate nekkoon na nag yu fiidu daan bëgg maanaam daan jugee di wàcc jamaatul naas mboolooy ñëpp min arafaat di ci arafaat waaye wa yu fiidu daan na bëbbee daan na wàccee alxumsa xumsa yi min jameen ci maanaam ànd ak maanaam mbooloo ñi nga xamante ne ñoom ñoom seen mbooloo lañ daan non waaye fan la daan nekke te Musdalifa qaala mu ne wa axbarani xabaare na ma abi sama baay maanaam kiko ko wax moom mooy kan Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa moo ne sama baay moo ma nettali an Aïcha jëlee ci soxna Aïcha ummul muminina radiallahu taala anha anna haadihi al aaya naka aaya bi nazalat daa fi l xums ci gaa yooyu la wàcce mooy ñoom lu ñu wax mooy aaya bi dam ne summa afiidu min xaytu afaada annaasu wastaghfirullah summa topp nag afiidu na ngeen di bëbbee di di wàcce min xaytu ci fa nga xam ne afaada moom foofu lay wàcce annaasu nit ñi maanaam bu leen de bu bu bu bu boo leen jugee arafat ah, maanaam boo leen de boo leen de ak nangeen dem ba arafat ngeen taxaw fa di jugee foofu fa nit ña nekk mu nekk fa mbooloo bëbb foofu wàcc fa dem leen ngeen wàcc foofu muy Arafat wastaghfirullah te ngeen si ak njéggalu yàlla maanaam ndax la ngeen nekke woon baaxutoo inna allah ghafur rahim buur yàlla ku yaatu njéggal la yaatu yërmande la hmm? loolu moom ah, ah. waaw kon na ngeen wàcc eh, na ngeen jógee Arafat na ngeen na ngeen dégg moo tax ma ne fa iza afattum min arafatin fazkurullah indal masharul haram waaw maanaam loolu mooy arafat kon na ngeen arafat na ngeen arafat ngeen taxaw fa waaye bu leen ñëw rek naan musdalifa la ñuy yem parce que ñoom li loolu li taxoon tartar boobu en fait li ak taral mooy arafat moom dafa génn xaram bi te ñoom dañoo jàppoon ne comme dañuy aj arafat manasikul xaj yi ñu def yëpp foofu rek moo génn voilà ko bokkul ci xaram bi nag ñoom ñu ne non duñ dem ba ba Arafat ñun ñun dañuy aj duñ génn bi voilà loolu la nag loolu nag moom moo mooy tartar bi mooy taral bi moo tax bi Seydina Jubayr moo tam gisee kii radiyallaahu daane mee gisee Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam daane kii ci xums la bokk gaa yi taral la bokk ne ñoom duñ génn mukk xaram bi waaw bu ñu aj duñ génn xaram bi loolu moom moo koy indi borom bi nag ne leen déedéet bu leen defee noonu moo tax kaanu nekkoon nañ eh, yu fi duuna eh, eh, daan nañu bëbb daan jóge min jamin ca jam maanaam ca nekk foofu ci mbooloo yi ca Musdalifa foofu lañ daan génnee ñu daan leen nag dégg nga du fi ñu daal leen di jañ ne leen léegi nag dig leen ñu dig leen ñu ne nañu jóge ila maam nañu dem nag ila arafaat ma ca arafaat maam ne leen léegi dem leen ba arafaat ngeen taxaw foofa soo leen dee jóge ngeen jóge foofa dem musdalifa après ginnaaw gi ci guddi gi moo tax ñoom dañ daan dajee araf musdalifa waaye daal ñu nangoo daje yegg arafaat comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi nii borom subhaanahu wa taala loolu la leen wax ne nag loolu jaaruwul bu leen ko defati neen jéggalu yàlla xadis euh, bi imaam Buxaari rahimahullahu taala euh, dana ko indiwaat xadis numéro 4520 imaam Muslim na ko xadis numéro 1219 ñaari yoon imaam Abu Dawud ko xadis numéro 1910 imaam imaam An-Nasaa'i imaam Buxaari imaam imaam imaam imaam An-Nasaa'i amma imaam moom indiwu ko rahimahullahu jamii والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين